ndaje tay bi ndaje la ndax xam nga dafa am formation ndax code des marchés téré la livre la ay articles yu bari la buñ koy exercer buñ koy traduire agent traduire ci bir service ya dañ lay ndax marché yi préparer dossier d'appel d'offres, préparer donc agent tàggat boo xamante ne da nga ko wéer ak ñi nga xamante ne ñooy saytu loolu ñoo ko xam loolu dafa am na solo def nañ ko daaw ren dañ ko gën a yaatal ci yeneen agent yoo xamante ne aussi euh, agent yi gën a diggu doomu pour permettre agent yooyu déjà ñu gën a xam lan mooy code des marchés ñu gën a xam aussi yan gàllankoor moo ci mën a am ñu gën a xam également nan la ñuy fexe ba bu ñuy passé marché yi ñu def ko ci yoon waaye def ko aussi ci defin boo xamante ne dina gaaw

bato yooyu du ñu egg si Afrique mooy li ñu tuddee les navires post Panamax tey jii bato yi gën a mag ci àdduna bi mën nañu yëkk ti mën nañu indi vingt mille conteneurs vingt mille maanaam vingt mille euh, conteneurs ci benn bateau bato boobu day day am euh, day day bu ñëwoon ci sunu dëkk yi du mën a dugg tey jii pooru Ndayane boobu loolu moo ko yëkkati Sénégal nag bu xësee ba defar lu mel noonu su bato yooyu nga xam ne dañ daan jaar Europe. pour yàkkale ay marchandises mu ñëw fi dotul jar ñu jaar Europe fii lañ koy yàkkale fi lañuy développer suñuy activité suñuy industrie également mëna dem directement à travers le monde kon port bu am solo la té eh, eh, xamna né population yi comprendre nañ enjeu yi amna ci quelques jafé jafé yo xamante état bi mu ngi ciy waxtaan ak ñom mais li ëpp solo rek moy ñu xamné Sénégal dëkk la bo xamante lepp lu muy construire daf ci wara a né marché africain wu 1 milliard 200 millions de consommateurs lañ jëm te incha allahu xam rafet nañ ci njort ndax président Macky Sall lépp lu muy jiital mooy waxtaan ak concertation. waaw Sénégal nak, il faut ñu xam euh, dafa am ci aduna bi lu ñuy càmbaree ndax dëkk mu ngi ci yoon bu baax bi ci wàll bobu ñu tuddee bonne gouvernance bokk na ci li ñu tuddee indice Mo Ibrahim indice Mo Ibrahim avant ñun ñuy ñëw au pouvoir Sénégal 16e la ci jëloon ci Afrique. tey jii bokk nañu ci fukki dëkk yi nga xamante ne ñoo gën a baax indice ci Afrique kon jéego am na ci beneen indice bi mooy li ñu tuddee indice wu Transparency International Sénégal cent douzième position la nekkoon tey jii ñu ngi soixante septième position kon avancé nañu gagné nañ ci ay jéego ay place yu am solo beneen indice bi mooy indice doing business nga xamante ne ci juróom-ñaari at gagné nañu soixante place kon ñu ngi ci yoon bu baax bi maintenant li ki des nag mooy rapport bu génnee dañuy lire la rapport ba bind. xool ñañu wax ci rapport bi lan la ñu tontu mais li ëpp solo rek mooy nañu jàpp ne dëkk bu ñu yor dëkk bu tegu ci yoon la te dëkk la boo xamante ne également mu ngi def ay effort en termes de transparence ak de bonne gouvernance